pël boobu euh, yaakaar naa ñëpp am nañ ci responsabilité euh, parce que ni ñu jàppee ni noonu la famille di nëpp nëppale noonu lañu jàppee ni itam justice daf koy nëpp nëppale Euh, parce que dañuy joxe exemple rek muy exemple bi nga xam ni euh, xew na ci ñi yor Jakarta nekk cees ñi yor Jakarta nekk Fatick ak ñeneen mm. mais cas yi nga xam ne ñoo ci nekk cas yi gën a récent te ñu mën ci teg loxo muy bi nga xam ni xewoon na Thiès mm. ba tey amul suite mm. benn benn policier la ñu wax ni moom moo rey benn jakartaman ba léegi loolu mujjul fenn euh, leneen li nga xam itam mujjul fenn muy li nga xam ni wax nga ko te mu xew Fatick benn jakartaman la itam euh, kuy dawal jakarta ak policier loolu itam ba bakkan faatu ci ndax loolu tam dafa laajul ndax loolu dafa laajul leeraange boo xam ni mais Pape euh, xam nga man dossier bu ma comprendre circonstances yi xëy na duma ci mën a dugg pour le cas de Thiès mujj na fen mujjul fenn man bu Fatick mënuma wax ni mujjul fenn parce que xale bi yar na ko yàlla yërëm je pense que tey lañ ko. Euh, denc donc ce qui fait que enquête dina dem lépp lu ci nekk aussi dinañ xam yan circonstances. la la la mais circonstances kay dégg nga ko. Euh, circonstances yi lu ñu wax. autopsie bi que mort naturelle la. non wax bala ñuy wax autopsie nañu wax ci circonstances yi ba pare. waaw circonstances yi. mais <laughs> xam nga li ma la wax parce que bi beneen affaire la. waa mais même autopsie bu fekkente ne beneen affaire la man li may wax chaque jour rek mooy nekk. bu fekkente ne dafa am accrochage bu am je ne suis pas là pour défendre la police damay wax rek ci li nga xamante ne man sama xel ci loolu la ma jox. bu fekkente ne accrochage dafa am je pense que tey balaa justice di def quoi que ce soit day jël le dossier en main xam lan moo xew moo tax ma ne la bu ñu waxagum ne que lu ñu nëpp nëppal la denc par xamaguñu la suite. Mm-hmm. waaw waaw non mais bavure yooyu ñuy gis rek. xam nga bavir policière yooyu nga xam ni ñaare dafay jur bakkan buy rot. Mm-hmm. loolu itam la ñuy wax ni est-ce que jarul ñu encadré ko jarul itam euh, ñu ñu ñu di ko topp di ko xool ba xam fan lay mujj. mu bañ a nekk loo xam ne rek dafay am après ñu ne walla autopsie bi lii la wax ñu fàtte ko gis nañ ko ci cas yu bari. waaw bavure yi man je pense que euh, balaa maa ñëw ci bavure yi dafa am lu ko jiitu. Mm-hmm. Euh, Sénégal dafa nekk réew moo xamante ne dafa am ay normes. ci secteur boo munti di dem foog naa am na réglementation bu ci état ci loolu aussi tey jii nii man damay gis ay exemple yoo xamante ne par exemple bu ñu arrêté benn Jakarta parce que solul casque xëy na dina mere policier bi alors que loolu réglementation bu ñu ko tegee. c'est pour encadrer ki nga xamante ne wala euh, assure même sécurité d'accord les mesures préventives man léegi nag yow ci lii ngay wax nii wax waaw ay côté ba ba bavure yeeg yooyu yëpp dama fekk ma fekk ay xale fi ñu toog jël leen yóbbu leen booru géej dóor leen ba kenn dee ci loolu mooy wax ji waaw mais ak lépp lu mu mënta demee Pape nañu xaar nañ xaar ba xam suite bi lan lay joxe parce que man mënuma jàpp ne que fii que gëm naa ne que lu ñuy jël teg ko de côté la man dama jàpp ne que rek justice bu jëlee. bu ñu sukkandikoo ci autopsie bu ñu <laughs> sukkandikoo ci autopsie bu ñu sukkandikoo ci bi foofu lay mujj. waaw mais man bu ñu sukkandikoo ci autopsie bi rek fa lay mujj mais man je ne peux pas me prononcer à la place lépp lu ma ci xam ci presse bi laa ko liggéey. Mhm. waaye tamit muy lu ma métti torop. Mhm. ndax damaa dëkk Fatick dëkk quartier HLM presque yaroo fa defee fa lépp mbuubaan nekk suñu côté. Mhm. xale yëpp ñu xam leen ñu nekk ñoo xam ne ay jàmbaar lañu liggéey lañu xam teral seen waajur yi. Mhm. sincèrement moo tax ma njëkkee ci jaale leen. Mhm. waaw d'accord euh, dañuy wax nag bi ngay bi ñuy wax léegi ci violence bi ak xale yi jàpp nga ne responsabilité yi parent yi am nañu ci euh, wàll waaye itam loolu nga xam ni dafay faral di dal ñii di yëngu ci wàllu Jakarta ak alkaati yi est-ce que jàppaloo ni itam état am na ci wàll parce que bu ñu demee ba liggéey ñëpp jàpp ni dawal Jakarta la cest bi ñu doon xaar gisuñu ko notamment foofu ci Fatick. amul lu lu lu ñu mën a jàpp ni xale yi foofu la ñu mën a liggéeyee feneen ak feneen naka noonu est-ce que jàppaloo ni loolu itam euh, maanaam euh, manquement la euh, ci seen régime ak yaakaar boo xam ni xëy na nit ñi amoon nañ ko mu tas ci wàllu gis nga question emploi des jeunes bu ñu mhm. koy wax il faut toujours ñu am une approche globale c'est pas parce que le gouvernement n'a pas fait des efforts c'est pas parce que le gouvernement n'a pas une ambition pour vraiment développer ce secteur-là. Mm-hmm. ñoom ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi def également seen kéemtalaay kàttan mais dafa fekk ne que soo ko jëlee même au niveau mondial c'est des questions yu nga xamante ne toujours day tegu sur la table des États c'est mm-hmm. partout dans le monde. Mm-hmm. loolu nag par exemple boo ñëwee en Afrique continent la ba nga xamante ne presque plus de 50 pour cent de sa population et les jeunes donc lu muy laaj mooy. ñu réadapté ay mécanismes yoo xamante ne ñoom ñoo correspondre à la réalité euh, nu mu tudd sax démographique euh, li nga xamante ne moom moo nekk ci ci ci àdduna bi ci Afrique muy ci Sénégal léegi nag leneen li nga xamante ne moo ci nekk ñu war ko leeral parce que chaque fois bu ñu waxee affaire emploi des jeunes xëy na ñun ñu dañuy foog nekk emploi des jeunes mooy ki nga xamante ne fonction publique recruté na la wala yaa ngi ci privé bi am sa bureau am sa autre man ñooñu loolu ñuy def seen jakarta yooyu du leen ko xeebal parce que tey waa Kaolack ñu ngi may déglu am na ay pas yoo xamante ne ci ci seen taxi yooyu ñu njëkkee ci la ñu amee ay taxi taxi ba am ci seen i njaboot am ci seen i kër di ci dund ba doon fi ay nit yoo xam ne tey am nañu tur am na ñeneen nit ñoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi xëy na ñu ngi leen di. tudd ci lu ne dañu amuloon ci lu ñu jàpp nag de moo tax ñu jàpp ci loolu ba loolu. aussi seen wërsëg ubbeeku ci loolu la rek mais mais mais amul. te ba mhm. tëb na yuret amul lépp loo gis dafa am fu muy tàmbalee. moo tax man képp koo xamante ne yaa ngi jàpp ci as tuut lu ndaw loo xamante ne sax même bu dee ab 2000 wala mille francs par par jour da la koy jural man dama la ciy naw respecté la ci. léegi li nga xamante ne moom moo mun a nekk muy secteur bu munti di amati léegi ci réew mi te je pense que sax gouvernement bi mu ngi koy def mooy nañu jéem a encadré noonu bu fekkente ne mun nañ leen impulser dimbali leen jàppale leen bu ñu valoriser métier boobu noonu parce que bu ñu jàpp ne que. Euh, dawal Jakarta valoriser euh, valoriser dawal dawal dawal Jakarta. mais bien sûr tey boo demee Chine pour éviter ay embouteillage mm-hmm. ah mais da ngay gis ay sociétés yoo xamante ne ay vélo la ñuy rangale yow da ngay ñëw rek fay. ak benn système de paiement boo xam ne kii vélo bi ubbeeku nga jël dem doxi say soxla ñëw teg. mais loolu en général ci ci capitale yi lay nekk wala ci grande ville yi. mais mais ndem foofu la am mais doomu wax ni ma ci ci àll bi booru xam nga. mais ndem foofu la am. te vélo laa la wax ndem foofu la am. kon tey man gisuma vraiment euh, inconvénient xale yor xaalisam dem jënd motoom di ci daan dooleem. daf ko métier daf ko métier. non mais euh, Jakarta boobu mooy andi leneen. mooy andi leneen mais mais mais leneen loolu. leneen loolu aussi cest à li ñu bëgg a wax mooy. sa à dire treize. Uh-huh. état aussi du da ngay naan ay Jakarta bi mooy indi leneen ak loolu état la ñuy wax. sa à dire état dafa dafa dafa waxoon ni euh, bu ma faloo mille emplois dinaa ko jox xale yi cest diir dire loolu buñ ko waxee te gisuñu ko ba ñuy rey seen bopp ci Jakarta yi ñii di rey seen bopp ci gaal yi mais loolu foo ñu taxaw xool ko. loolu moo tax ma wax la ko xam nga Pape man du ma nangu nga nga nga jàpp ne état deful. lu mu waroon def wala deful sax dara. mais fay emploi des jeunes boo xoolee fay rek xam ne defu mais fay am Sénégal ñoo am feneen ak feneen ak feneen. mais Sénégal la ñuy wax dama ne la fay rek la boo xamante ne jël na trente milliards. Mhm. jagle ko ndaw ñi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi. barke Dembo Ndiaye démb si lax je pense man j'ai suivi des DG de l'ANPEJ ay équipement yi nga xamante ne c'est dédié aux jeunes ak yeneen ak yeneen FONGIP fii la la fekk ah. yeneen accompagnement yoo xam ñu ngi koy jox ndaw ñi di leen di ci jàppale di leen di encadrer ministère de la formation professionnelle lu ñuy def ci ndaw ñi bu ko xeeb avec les centres de formation. xeebuma ko ministère de euh, l' enseignement supérieur lu ñu fi def. dama gisul dama ko gisul dama gisul lu ñu fi def. mais mais man xeebuma ko. mais dama ko gisul man li may gis mooy ay ndaw yoo xam ni. li ma la limal c' est des mais nangu nga ne quand même DER mu ngi. financé ay ay slogan wax ay ay FONGIP ay ANPEJ loolu laay dégg quoi ay li ma la wax li ma la wax nii du slogan. Mhm. pas mal de jeunes ñoo xamante ne jot nañu ay financement état liggéey am ci ay résultats. man c'est vrai que nag ñëpp mënuñoo daj. mais li ma la mën a wax mooy ne que tey jii nii. gouvernement bi ko Fatick gis nga ko jaareex ah, bu baax jaareex je peux vous donner ma leen di gërëm au passage. ñi nga xam ñoom ñooy les vulganisateurs xam nga léegi danga wax affaire affaire affaire nu mu tudd sax Jakarta tey boo duggee biir Dakar mën naa la ne vulganisateur yu bëri yi ngay gis. ils sont originaires de Diarré wala ci environnement yi ils se sont constitués en GIE DER financé leen ñu ngi liggéey seen liggéey bu am solo fay nañ ba ñu ngir dugalaat beneen requête tey conteneur boo leen andi ñu jënd ko yor seen xaalis boo demee dëkk ba tey bâtiment bu rafet boo fa gis ñoom ñoo ko tabaxal seen waajur yi man je pense que moo tax ma ne la bu ñu xeebal kenn métier mm-hmm. weer bu dee ñooy joxe dépense yi. c'est que dama jàpp ne que rek nañu comprendre ne que ñëpp mënuñoo dem université ñëpp mënuñoo dem France ñëpp mënuñoo dem Europe ñëpp mënuñoo dem fonction publique mais ku nekk ak sa catégorie socio-professionnelle ñu bari mën nañu war a am war nañoo mën am formation ñu bari war nañoo a am formation mais moo tax état à travers euh, le 3FPT taxawal fonds boobu noonu pour ñu gën a appuyer li nga xamante ne moom mooy formation ndaw ñi pour ñu am au moins la qualification que tey. mais ci lu concret parce que ay FPT ay FONGIP ay ANPEJ c'est-à-dire. slogan yi dafa bëri te gisuma si pas des slogans parce que structure yi noonu la ñu tudd am ay contenu am ay mission di ko dérouler mu am ay cibles yoo xamante ne ñoo ci nekk nekk ay bénéficiaires. loolu nag Pape Ngagne xanaa war nga koo mën a comprendre. am na bala ma koy comprendre gis ko maa ngi ci dëkk bi yaa ngi ci dëkk bi. ah man de maa ngi ci dëkk bi ah. fu nekk laay dugg fu nekk laay dem ci Sénégal et des jeunes qui sont wala dafa féete boor ci affaire féetewul beer. wala dafa féete boor foote féetewul boor pas du tout. non bu féetewutoon boor. <laughs> kon xanaa dina. Euh, investissement yi état def. waaw en matière de jeunesse. je peux dire que tey gisaguma ku ko def. Mhm. parce que tey boo jëlee li dugg ci enseignement supérieur. carte universitaire bi nuñ ko élargiré ak li nga xamante ne moo dem ci formation professionnel li nga xam moo dem en matière de financement des jeunes li nga xamante ne également moo dem par exemple ci DAC yi ak leneen ak leneen man je une fois des efforts qui ont été faits mais nag comme li ñuy wax daanu dajul suuf nañu góorgóorluwaat ñun ñëpp rek te nekk li nga yor jàpp ko. liggéey état bu la ci fekkee baax na te gëm naa ne que ñu ci bëri am nañu yéene am nañu jom am nañu pasteef parce que nag Sénégal c' est pas une jeunesse boo xam ne dañoo dañoo yaafus ay liggéeykat lañu. bu dee xale yi ñu ngiy jàng am ay diplôme et mais nag il faut ñu xam ne que nag lii xew Sénégal boo demee ci beneen dëkk amaan amaana sax ci Afrique la fay am moo moo gën a doy waar. donc ñun fu ne la ñuy dem. waaw waaw moo tax ma ne la nag la fay am moo gën a doy waar yow loolu nga jàpp. Euh, yow loolu loolu loolu nga jàpp mais man jàpp ma ni par exemple lii xew fii ba ay bakkan di ci rot te dara du ci xew lu dul ñoo xam ne dañu yor seen jakartaa di dajeek ay policiers peut-être ci ay contrôle wala leneen coow di ci am ba bakkan di ci faatu man loolu boo nee lii xew feneen moo gën a doy waar lii xew fii man loolu mun ma ko encore une fois man dama lay wax ni que lii xew ba ay bakkan di ci daan parce que communication dafa doy waar te man Fatick laa dëkk mhm. loolu man du loo xamante ne vraiment ànd man loolu moo tax ma ne dafa nekk loo xamante ne lu métti la mais ci yan circonstances la amee xaw ma ko. non bo non mais boo ci àndoon da nga ànd ak ñoom jusqu'au bout. mais da nga ci ànd ak ñoom nga ciy ànd ñoom parce que ànd ci ak ñoom. mooy circonstances yi dara ump la ci. mais ça ne veut pas dire que circonstances te nanguwuloo taxaw wax ci circonstances yooyu. mais ça ne veut pas dire que état. deful lu mu war a def. non non non état nga gën a àndal ni ñoom waa Fatick. non c'est pas parce a àndal. mais <laughs> parce que Sénégal laa gis li nekk li ñu nekk. d'accord ok di def xam <laughs>